ay la yéwén nag fan yu ñu weesu gis nañ ay cokkarloo yu am ci diggante ay ay étudiants mais Sénégal ñoo war a xam ni foo xamante ni cent mille personnes dañ fay yeewoo di fa añee di fa reeree di fa ndëkkee foofu peut-être mënul ñàkk coow waaye ñuy xamal réew mi ak waa bitim réew que ni ñun liggéeykat yi coow bi. Nous ngi fait don don pour faire ak xiro bi am université mu dak mu dak les autorités étatiques si sama français euh, texte bi ma ngi wax ni dafa am ño xamanteni dañ politique bam upp lolo ay la yewen moy dëgg ñun nous kat yi taluñ ñëw liggéey dem ñibbi xeex beeg xiiroo beeg ŋaayo bi dañ cee doyal maintenant nag li fi xewoon la fois dernière gën a yokk tax ñu ne ñun ñoo xam li xew fii université mooy man damay ay ree damay jàpp bu ma toogee di dégg ci journaux yi ñu naan ay xeexu waaso dafa am biir université man dama jàpp dama ne damay wax ñëpp ñu dégg ko xeexu waaso amul fii biir université cent mille étudiants fu ñuy yeewoo ñaari xale jote ba seeni xarit mais ñëpp ñoo jaar université loolu ku nekk fekkee na ko seeni xarit dugg ji xeex boobu ñu bugg ko def ay xeexu waaso la vraiment man dama dama tiit bi ma déggee loolu di wane ni ñun ñu fekke di jiite liggéeykat yi nekk fii xam histoire bi nu mu demee fii xeexi waaso amu fii ay xale ñoo jote seeni morom jàppale leen ba xeex amu fi am fi képp koo xamante ne journaliste wala ci réew mi nga tekk te jaar université xam nga ni bu ñuy def codification ay cokkorloo dina am bu ñuy def lu ñuy def université ay cokkorloo dina am loolu loolu loolu université la fekk baax mais nag ñu ngi ñaan di interpeller di interpeller l'assemblée de l'université ñun travailleurs yi ñom ñu jël ay mesures fermes à ce que ay étudiants yo xamanteni demati nañ nak bay dugg ci xex bo xamanteni xex la bo xamanteni histoire bu nu dak la vraiment l'assemblée de l'université jël ay mesures par rapport à ça. ñi ngi wo autorité yi ngir ñu gën ñoo jàppale ci li nga xamanteni moy sécurité étudiants ak personnel ngir jam dellu si jàmm naam dellu si na waye nak gën koo yokk gën koo améliorer ba nga xamante ni euh, néew ñi dina fi ñàkk mais dina fi gëj wala mu raax fi lool ñu ngi koy ñaan ñi nga xamante ni ñoom ñoo ŋànk réew mi ñu ŋànk université yi d'abord ku ñu jàpp leen ci sécurité travailleurs ak sécurité étudiants yi. ñu ngi owaat opinion bi di leen arrêté ñu xam ne université bi ñi fi nekk c'est le grenier grenier bi nga ma sàq mi nga xam ne nii ëllëg ci lay réew mi di tubb. pour mun a siggi ëllëg